fàttaliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ. yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetlooguma ko. tomb bi ñu fas yéene fàttalante tey waxtaane nañu ko fi lu baree baree baree bare waaye alxuraan yàlla ngi ciy wax ak nun jaarale ko ci. yonenteem ba sallallahu alayhi wa sallam dee leen fàttali bu fekkee fàttali dana am njariñ waaye am na fu muy waxee it ne deel fàttali ndax fàttali am na njariñ am na njariñ ak bu dee am njariñ ñaar yooyu la jëfandikoo ngir xam gi mu xam ne ñi muy waxal ak di séq ak ñoom ñi ngi ko bañ ba tudd leen sax far insaan wa kulla insaanin alzamnaahu taairahu fi unuqihi loolu lépp di ko wan ne dañ ko war di joxañ saa su nekk naa ko du foofu feela li nga xam ne moo ñu fi dajale muy jullik aljuma nit ñi miin nañ ko lool waaye li tax mu mat di fàttaleeka fàttaliwaat saa su nekk ñuy gis lu ko jar ndax du ndajeem caaxaan du ndaje moo xam ne yi may bëgg a wax ci kanam moo waral ñu di ko daje suñu demee ci téere boo xam ne sëriñ Mawlay Bousso rahimahullah moo ko bind sëriñ Sohaybu bu Mbakke ñaanoon kooko mu leeral ca julli ak juma aljumaa ci boppam ku dem danga ci fekk yu bare bare bare bare yoo xam ne des na ci dégg ni bisub aljumaa bokkut ak bisi ci des waaye julli ji aljumaa itam du ay caaxaan lu mat a jàpp xel li tax jullit war a sant yàlla nag fu tollu toll eh, doonut ne eh, li ñu wax ne moo dal wolof te suñ tubaab doon ko teree mooy lu la waaye defal rek nga ne dama ko yaayoo suñ bu mag bi nee na gàtt xel mi ngi tàmbalee yam ci lu la waaye defal nga ne dama ko dama ko yaayoo rek war na ma koo defal waaye lu la waaye defal danga ko cay sant sant ko ca ndax lan am na keneen ku ko leeral ci njabootam rahmatullah alayhim ajmain ne li tax di sant nit ci li wara def defal la ko cant ko di waru gar ci kim ko defal li tax moy ñu bari ñum war na ñom te defuñu kon ku la defal dang koy sant lolou Serigne saliw mako ko nit ki lim liko war mu def ko ci lañ koy sant waye suñu ak suñu borom nak, lu koy war ci ñun bam diñu ko defal da dox suñu digënté sëñ bu mag bi mi ngi wax ci ay mbindam ne fa fiala kulli mumkinin wa tarka fi xaqihi ajis ku fiital ifka lépp lu yàlla defal nit ni ab jaamam yàlla ko ko gëne ak coobareem képp waaye doonul ne daf koo war ci nit ki ndax moo ko sàkk moo ko fi indi da koo war a da koo war a déedéet loolu kay war ak wàcc kay ñun ñi di ay jàmm lay war ak a wàcc fu mu war ci kenn rek wàcc war ca ka ca des su ko defee dañ koy sant ci loolu mu ñuy defal nag mooy ñu jëfandikoo ko ci anam gam bëgg ko ko ne jëfandikoo ndax rabbuka yaxluqu ma yashaa wa yaxtaar li muy moom lépp indi fi lépp di ko fi jëlewaat teewut mu tànn ca ne lii moom a gënal su ko defee ñun bokk ñun jullit yépp li ñu war a sant yàlla mooy bisub aljumaa ci boppam sëriñ Mawlaay mi ngi leeral luxab bisub aljuma lu muy tekki di wax ne am ndaje lay tekki maanaam ab luuma boo xam ne dañ koo luuma mooy marché yi ñuy def bis par bis bu dellu si Tuubaa gi am na si bosam boo xam ne aljuma la woon la danoon sabab sa mooy jumaa ji mën a feesaku nit ndax booba li dëkk Tuubaa mun a fees jumaa ji benn naar bind na ko téere bu yaatu jàngat ci Touba ci bopam ak lutax serigne bi def ilhah ci ñu war liggey juma jumaay Touba ji bam koy lim bolé na ca ne juma ji mo fi indi marché bi ndax marché bi li tax ñu diko dugg ñu da ko dugg ak juma li dekkon Touba ci aw nit mënu ñu a fees juma ji ndax néew waye motax ñu wote ko bisub aljuma def ko mantiqa hurra nga xamne kenn kenn du fay dara bu noppi ndox mi bari fi neena jabo bi mu doonon bisub aljuma mo ran tax juma ji fess del mu jégué juma ji lol nga xamne euh dem julli ji du la yàqal du jël waxtu bu bari tayit ñi nga xam ne waruñu passif lañu woon ci ay jamono dañ daan julli ji bu ñu fa jógee demaale duggaale yóbbaale ndax moo gënoon a yomb man te la mooy foo xam ne kenn daf kenn daf fay dara kon cosaanul yowmul jumaa ba julli gi tënk ci nit ñi ñu wàññi ko def ko ñaar am na lu bari lu ci aju waaye bokk na ci rek lii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax moo gën a wér waxi ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jullit yi war nañoo sant yàlla bu baax dolli ca lañ ko doon sant ci bis bi mu leen fi bàyyil bañ fekk ko fi mu roof ca lam ca roof ci ay ngëneel ak i sakkare ndax ngëneel li ne ci aljuma diine yi jiitu lislaam te amatuñ léegi amatuñ am na diine yu ko jiitu woon muy diine diine diine yahud dina yahudiya ak nasraniya li tax amatuñ moy senegal ñi nga wax ba léegi président Lamine Gueye ta fek fatuna bu yag di wax président Senghor fatuna amatuñ amatul di wax président Abdou Diouf ta mi ngi dund di wax président Ablaye wad ta fek mi ngi dund waye lu tax président bi mooy seen présidence daa jeex da lañ signé ñom kenn ñu ne Sénégal signé waye mënatu mënatuñoo signé ñom kenn ngir Sénégal waye téwul tur wa fa loolu moo fi bàyyi diine yi ci des bañ naan diine yi ci des waaye diine jan rek la moom la ci yàlla xam muy inna diina inda llaahi lislaam wa man yabtagi gayra lislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi l-aaxirati min al yàlla nee na diine yi yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na diine yi jiitu woon lislaam te lislaam dañ doon xàllal mba mbabal bañ tegee seen bët dégg ndóoyul ngëneelul ju al ngëneel lii ñuy tàkk li ñu am ñun ñom dañ ko doon dak mu ne yahud nañ ko dak ci bisub gaaw ba gaaw bu ñëwee ba fi mu ne nii yahud ci aduna bëpp dañuy noppalu dañuy noppalu jappé ko bisu fa ñi ngi ko tek ci alquran ñi ci dess tam ñi ngi ko tek ci alquran nasara nasara yi chrétien yi di noppalu bisu di béer ndax ku dem ci alquran da nga ci fekk yalla di wax jullit yi bañ xamagut li ñu xamoon di leen wan ci yi ñuy gis di leen ci wan ay kéemtaan ne ki ñuy wax yàlla mi leen moom mooy ki bind asamaan ak suuf ci juróom benn fan te bu ñu seetee ajjuma ba ajjuma ji dal si lay ëpp juróom benn fan juróom ñaari fan lay nekk ñu ne lu tax juróom benn fan ñu ne kon daa noppalu fi sittati ayyam thumma stawa ala al arsh dem nag toog ne lim dallu ci li ko nit di dégg moo tax ñu nekkoon kon bisub aljumaa bisub pay lay doon maanaam ku liggéey ba àggal ba jàng wàcc maçon bu wàcc mécanicien bu wàcc jàng eh, sol yéreem yam andi woon ba muy xëy si xanaa sañ naa dem ca ka ko doon liggéeyloo tàllal loxo ne ko maa ngi dellu kër ga mu fay ko mu dem ngëneel yi nekk ci bisub aljumaa nag te yàlla bàyyi leen ko fi muhammad ak xeetam sallallahu alayhi wa sallam yonent bi nee na yahud nañ ko dàkk ci bisub gaaw ba ba tey ji gaaw ab yahud du ci lekk sax yàpp ndax lan bañ a sonal ay gëñam du ci xool télévision lu lu yàgg yàgg ndax bañ a sonal ay gëtam du ci wax lu bari ndax li ci roy yàllaay naa nañ ci ndax bis seen bisu pay la war waye chrétien yi tam neena yàlla da tambalé liggéey altine ba gaaw mu noppalu dibéer ñi ne gaaw dibéer la tambalé liggéey ba aljuma mu noppalu dibéer mu noppalu gaaw waye ànd ak loolu lépp euh sallallahu alayhi wasallam ko xétam yàlla xamalon na xaman xamoon na moom bis ba muy doon xam ña moom ñam ko fa tegal ndax yàlla du séddale yàlla du kuy séddale day maye booy maye mën ngaa may koo xam ak koo xamul booy séddale booy séddale moom la jëkk wax séddalewut day maye booy séddale ku ca bokk day am te dañoo war a tolloo dëgg-dëgg li jaadu mooy lu ñuy séddale ña ko bokk ñëpp dañoo war a tolloole ci seen wàll waaye sooy maye nag yaay seet ña la neex nga di leen may bay may koo xam ne sax nekku fi daan ne ana diw ñu la génn mu ne nañ ko fi ba daal di ko fay bàyyi wàllam woo xam ne mën naa gën a duun fuuf lim joxoon ñi nga xam ne ñoo fi nekk kon loolu la yàlla dafa dindi ci bisu aljuma ñu ngi sant yàlla bu baax ndax kat eh, am na leneen lu ci aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bis bi gën ci bis jant yi di fenk bis bi sa jant dana fenk so waaye bis yi bis yëpp ba ci gën boo tàmbalee lim gaaw ba ngay asi ci alxames ba ajjuma nee na ajjuma moo ci gën ndax lan ci la yàlla bindoon suñu maam aadama loolu bisu fàttali ko la ci ñoom am na fi wax ci alxuraan naan laqad xalaqna al insana min salsalin min xamain masnun ba àgg ci fa ida sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi yéen bi bisu ajjuma la xewoon neena itam ci la ko joxe woon ndigalul dë duggal àjjana dëkk fa te du ko génn li fekk bi foofu nangam ak nangam la koy tere uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma bam mu des dab la taqraba hadhihi shajar fa takuna min adh-dhalimin waye ci lañ ko génné itam aljanna indi ko fii fu tàng fi fu bari ay yoon bari ay matat bari ay jafe-jafe mooy fi nga koy wax naan ihbita minha jamia yéen ñëpp bu kenn des yóbbal leen seen bagage bu fi kenn des kon bisub aljumaa bisu fàttaliku la ci jullit yi waaye di muy dox ba agsi sallallahu alayhi wa sallam euh, nag jullit dañ ci amat seen wàll woo xam ne ñoom kenn ñoo ko moom tamit mat di jàngat di mat di fàttalente ndax mooy bis bi nga xam ne bu ñëwee bari na réew yoo xam ne ñoom duñ ko liggéey donte lenn ci fuqaha yi nee nañ sib nañ ko ko dul liggéey rek ngir waa ji la julli aljuma sib nañ ko ko dul liggéey ngir li bisu aljuma ndax liggéey ak jaamu yàlla ñoo ànd te nit ki daa war di liggéey bañ ne hayya ala salaat hayya ala falaa mbàyyi ko fa dem ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtaxu min fadlillah kon am na réew yu ko jël def ko bisub nopp boo xam ne ñoom itam duñ ca def dara waaye réew yi ko def bisub nopp nag néew nañu ciy julli ci àjjuma daa mat a am na ñoo xam ne ngi dëkk ci sës ci masjidul xaraam ci makkal mukarrama wala madinal munawwara te duñ julli ci àjjuma lu yéeme la su àjjuma jotee bañ bañ noppalu dañuy gont dem fanaan yi feneen dama tudd Madina rek ak Makka ndax jullit yëpp ko bokk waaye feneen fu man doon fii ci dëkk bi am na ñoo xam ne jullit ci àjjuma suñu ne marché bi dañ koy tëj àjjuma itam bu bu marché bi jotee ñu dem fanaani feneen moom bis boobu ndax ñoo ko moom bu bis bu bu gaawoo ci suba sa ñu war a xëy seetaani làmb wala seetaani football wala wala wala leneen wala dem ab soirée yal nañu ci Yàlla musal buñ jëlee bisub aljumaa ne bu ta bu tisbaar jotee na ñëpp dem ca jumaa ja te jumaa jooju ñu wutal ko nu muy mel bokk na ca la ci gën a yomb rek nu muy mel mooy kër yi waruñu ko gën kër ya waruñoo gën jumaa ja nu mel waruñu ko ëpp waruñu koo sut waruñu ko gën a rafet ndax kër yàlla la te yàlla moom lépp waaye dafa am lu fi wuti ak ñeñ ne yéen ñii yéen ñëpp diw diw diw yéen moom suñu leen ko tàppe loolu lépp dafa am lañ fa war a jëlee war ko faa waxtaan moo tax mooy benn bis boo xam ne dañ ne nañ tëj jàkka yépp muy lu garaaw nañ tëj jàkka muy lu garaaw a garaaw a garaaw lu kenn jullee ci jàkka na ñëpp gën dem te jàkka njëriñam moom itam mënu si ko waxtaanal ci benn jotaay xamante gi ma junj léegi ne jullit aljuma jullit yi danañ fa xamante danañ fa fasante ay kóllëre te yàlla rek tax Euh, li dox li dox ci diggante nit ñi ci kii am na nangam kii ñàkk na nangam doo ko xam ci jàkka yi kii daraja sàngam la ci lañ koy wormaale ak kii daraja ko gën a suufe la lu si ko xamee ci yi waaye kii ci giir sàngam la bokk kii giir la bokk doo ko ci xàmmee day mel ne barab la bopp kon barabu jàngat sañ-sañu suñu borom bi ak nguuram gi ak katanam gi katanam gi daf cay feeñ ndax ñepp dañuy and do ñew mag ak ndaw ku am ak ku amut nañ ko wax bu jekk ku yilif ak ka ko yilif ak ñepp ñu do ñew taxawono mag ak mag tank tank tànk ñangal mu reel ci ci waye rawat na nak bu aljuma ñu ne nañ tëj jàkk yépp jàkka mom ña ko koñ xamanté xamante juróomi yoon ngeen di gisante saa bu ngeen gisante wut tey lu tee sañ diw julli si suba lu tee mu julli si tisbaar ñu dem seeti ba xam lu mu doon wala seenu jaxasoo àgg ci buy xëy suba fenn daan suba kat dama bëgg a xëy barab sàngam ba buñ nee ana diw ñu ne waxoon naa day xëy barab sàngam wala day gont barab sàngam julli si wut timis ak lu am solo la waaye su àjjuma moom dëkk bépp dañuy daje fenn ñu ne kon dëkk bépp dëkk boo xam ne euh, su fa ak lakk amoon loolu mooy fekk ab ak lakk amoon marde bi wala gaynde jóox fa mën nañ koo fajal seen bopp te duñu woo ñeneen ñooña war nañoo wut jumaa di fa julli ak jumaa waaye dimbi tabaxu jumaa kese kese lañ ci jublu waaye ñu di fa waxtaane lii xew ci jamono jëpp rawatina ajjuma jaay waaye ak ajjuma ji lu ci nekk te réew mi ñu nekk di réewum ay jullit ana lu ci jullit yi war a taxawe luñ ca war a jàpp ak luñ ca war a bàyyi kon du dajab caaxaan kon kuy dem day taataan kuy taataan nag bu fekkee day taw wala oto gaare ci penc mi ñu ne ñëw leen jël saa bu ñu séenee oto ba war nañoo xam oto be kuy dem ak sendal ngay yor wala de ndax ngooñ laam de wala ceeb bu ñorul la am walla ndox la la tax nit di jóg moom da war a xam su fekkee am ngooñ la ku yóbbu biteel doo ca am walla doo am lu bañ su dee ceeb bu ñorut la ku yóbbu sendal doo am walla la ngay indi dana néew lool da ko def feneen fu dul sendal ga su dee am ndox la itam man na yóbbu biteel walla damsaan damsaan ñi xamul doomu saan mooy biteel biteel yooyu di toll ne ak paam moo tax sama mbokkum séeréer moom ba yàlla ba nit ko fuddee ne yàlla karim la ne ho ho bébb leen yàlla karim la mu ne ko yaa xeeb yàlla xanaa da nga naan yàlla dem saan la waaye yàlla ëpp na ëpp na karim karim mooy biteel bu tuuti genn wàll walaam kon la tax nit ñi ñu ne leen kuy dem na waaj waajtaay yu ma yu ma junj léegi sangu cangaayul janaba moom aljuma ñoo xaw a niroo mu wute tuuti rek loo xam ne ku ko laaj fexe ba dëkk koy mën a ko wax sangu te laab sangu mooy setu gi ñu xam rek sangoog saabu sangook leneen waaye can sangaay li diine santaane mooy laab mooy laabug sa mooy laabug sariya laab wut ndox ndox daal Mahmoud mutlaq mooy mooy ndox moo xam ne duñ ne ndoxam nangam am na ku ma ne soxnaam sax am dëkk sangam da nga fonk lool ki may wax mag la lool ma ne ko ah ah yàlla na ko yàlla fay mu ne fonkeel kay àgg na si sa bu may xëy bu may duyee ndoxam sang eh, da tudd laj ko bu seer na ma lay sotti ci ndox ma ne ko su beneen nag nee ko bu mu la ci defal dara na doon kese kese su ko defee kuy julli ci ajjuma jaar ci cangaay loolu cangaayal sag daal di sol rafet su ko mënee am bu dul rafet ba doon lu bees tam na doon lu set wicc rek bu amee gët mooy laj ko laj mu xeeñoo ko su ko amul mu tànku génn door génn këram ndax dara jot du yóbbaale ci jumaa yi xet goo xam ne kenn na nga ko jege yow waaye fexe ba neex a xool rek koo xam ne tey bu ñu ko doon koy wuyu suñ mu daal jóg dem su ñëwee si jumaa ja nag dem nga si jumaa ja am na ay wuute ñii ne li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ki jëkk jilli julli gi dana am nangam ki cay topp topp ca ka cay topp topp ca maanaam jëkkante gi ci jumaa gi du tolloo ab yoon tolloo wuñ ay yoon am na ñoo xam ne seen bu yool dana toll ne gëléem gu mat ba mot ci gëléem tukkal ñu jaay ko jox la la muy jaar ak ak njëgam ka ca des ka ca topp am lu mel ne nag wi mag ci wi gën a ci nag yi ñu jaay ko jox ko ñu njëgam ñenn ñi am xar am xaaf am kóoy ñenn ñi ci des ñenn ñi am ganaar njëgu ganaar ñenn ñi am njëgu ab nen mooy ñi mujj dem doonte kenn du ñàkk waaye ku soñoon nag ak ajjuma ju nekk ñu jox la njëgu gëléem gu mat motti ñu ne loolu la ci yonent bi juba teel a dem ñenn ñu ne ci gën a sori fa mu jógee ba mu cay dem ki gën a sori fa mu ci jóge fa muy jóge ba mu cay dem moo tax lenn ci mag ñi daana ñaan yàlla yàlla may leen seen jàkk sori soreek seen kër ba ñuy mën a dox ay jéego yu yàgg door a àgg ci jàkk am na ko ne woon sëñ Abdul Xaadir dëkkam dañuy wax bustaan jàkka ji daa sori kër gi lool ndax waa ji daa fekk ab taw sëñ bi di xëccoo ak taw bi ak ngelaw li ngelaw li léeg ngelaw li puus ko ba mu wàññi ko waat ndax ndax nem toll war a tax mu ne ko dañoo war a indi jàkka ji mu gën a jege si mu ne ko déedéet noonu la baaxee ndax ñu baax ñu daanañ ñaan seen jàkk yi gën a sori ak seen kër ba ñu mën a dox yu yàgg door kon dox boobu yi ak tànk am na lu ci nekk biñ demee ba leneen mën a wuutu tànk yi muy oto yeeg daamar yi moom itam sori sori rek la sori sori rek la oto bi gën a fu mu jógee mooy ëpp lu ñuy tourné door a àgg gën a jege loolu lépp nag waajtaay week ku teel dem ak ku gën a sori jàkka jàkk ku ku gën a jege ginnaaw bu ko waree ba noppi xam nañ ne am na lu ci nekk am na lu muy wuti foofu junj naa ko léegi ci kenn ku nekk la muy duyee bu demee la muy duyee bu demee yonent bi ne ko waaj waajtaay woowu ba ñëw ba ñëw teew yàlla jéggal na ko eh, li mu defoon ci bàkkaar yu mag ajjuma ba ajjuma ji weesu ba ajjumay tey yàlla ñu ko yàlla defal bu yàlla dogalee mu moytu ci diggante bi yu ndaw yi ci diggante bi yëpp yu yu ndaw yi su ko moytoo ajjuma jeeweesu ba ajjuma tey ji yàlla jégal na ko yu mag xanaa loolu itam dem ci jumaa ja rek rek rek rek waaye taasaan fa itam taasaan ga nag ci laa bëggoon a taxaw tuuti dama koy gàttal taasaan ja yonent bi daf koo tënk ci kaw kookee ba mu demee ba ci jàkka ja mu ne tekk déglu déglu na na tekk ndax tekk ñaare ku ko def tekk mën na ko woon aw yoon déglu istima ak insaaf istima mën na déglu lu nekk rumbox rombox ju koy romboog lu nekk te du xam lu mu doon waaye insaaf mooy di ko setantal ida quri al quranu fastamiu lahu wa ansitu dee leen ko déglu waa ji li muy waxee waaye li muy wax itam daf cee mata daf cee mata bàyyi xel wa ansitu la laallakum turhamun kon ku julli julli ci ajjuma tax a ñëw jóge fu sori maanaam fi ñuy jóge gën naa sorente bàyyi na ay yitteem bàyyi na ay soxla yu ne gàññ mën naa yàkkamti itam nag mu jeex mu delluwaat ca waaye état ginnaaw ñëw na yi ci digg yëpp yàlla ñu ko yàlla defal waaye lay tax mu gën a rafet nag moo ñu tënk ko ci ab joxañ defe leen ko nii bàyyi leen ko naaw damay wax saa su nekk ne ñi nga xam ne dañuy teg ay rajo wala ñuy filmer nañu ko régler laata kay wax di tàmbali ndax kat julli ci yaari at Yalla rek mo xam lu tollu ci ay aljuma yu yalla nangu waye nit man na xam ñaata ajjuma ñaari at ëllëg ci biir yalla ne waaw sa aljuma yoyé mom yalla waji tala loxo yalla ne ko yalla fay ma mu ne ko lan mu ne ko ajjuma yaa ca waxoon wax ca laa ne ko waye da wo deglo da nga da da nga daan bokku di xasanu di set kaset bu ba xam mi ngi doxam de di set ba xam mi ngi de loolu wàññi na bu baax a baax lu tee ma jox la dara nag waaye day wàññi lool la ma ci digg woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waxuma la koy wax ci jàkka ji fekk ni ngay xut ko la ma doon tuddee taataan ak lépp oto bi gaar na ñëw leen jël taataan te xutba bi laa ci jël ndax du du julli kese kese rek moo ci genn julli goo xam ne saa ba lañ koo julli dañuy wax ak nit ñi cosaan li moo doonoon dañuy sëlmal ba noppi waaye daa am bis sallallahu alayhi wa sallam di di xutba fekk sëlmal nañ ba noppi ab conteneur ñëw dëkk bi saa bu ñu déggee di wàcc na conteneur njooxe lay def day mel ne suñ bu ubbi na rek dañ ko doon nekk yonent bi taxaw di xutba ba yàgg ñu naan ñaara fa des ñett ñu taxa a des yàlla ne ko waaw bu mu la tax a bàyyi ndax nit ñi kat dañoo mat a waxal qul maa inda allahi xayru min allahi wa min altijaara ndax lan ida raaw tijaratan aw lahwan infadu ilayha wa tarakuka xaa'ima yow kenn waaye ne leen yàlla nee na yonent bi nee na moo gën fuuf conteneur bu wàcc ndax conteneur yi wàcc la si ëpp malitu tubaab yi lay doon te lu tubaab soxla tut tubaab sax lu mu soxla jërtu soxla ci jullit waxuma la tubaab soxla tut ba sànni ko di ko jaayee lu yomb wala mu ma wala mu di ko maye jëru ko nañ moo tax ñu indi ko bala ñuy julli bëgg mu tënk nit ñi ba li ñuy wax ñu yóbbu ko ndax ku julli tax a jóg dana dana xaar nañu ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax am nañuy laaj ba xam dañ ko war a wax ci wala wala wala wala arab ñi koy wax ci arab am nañu seen i lay waaye ñi koy wax ci yeneen langue itam am nañ seen i ndax buñ ne ñëw leen ba ñëpp ñëw wala fu neen da ko wax wala nga jox ko ay yaana salaati as léeg-léeg mu tudd ñëw leen ci ñaan gi ñëw leen ñu ñaan ñëpp daal di ñëw ku ñuy ñaan yàlla te ak ñaan ci charia dañ cay bañ wala mocc sax dañ cay bañ di wax lu kenn xamul dañ ko cay bañ nit ñi ñëw leen ba nit ñi ñëw ñuy wax lu kenn xamul lu doon nit ñi sañ nañu laaj lu ñu um ñu doon doyee wax dëgg yàlla sañ nañ ko laaj euh, waaye teewul bu ñu woote rek nañ wuy am yoon wuy yàlla ñu ko yàlla su ko defee ba boobu yi dafa am solo lool ndax bari na ay ñuy wut paluk adduna di ko jaaree ci politique léeg-léeg ñi woon nit ñi bëgg ñu ñëw ñu joxe xaalis joxe ñu mbaxal ba seen bi seen koor yaa fees ñu doon joxe oto ñu dugg si oto ya ñu sol leen ay mbubb ñu ñëw bu waa waxee lu ñor ñu tàccu bu waxul lu ñor ñu tàccu waaye bisub aljumaa mooy bis boo xam ne bu ñu nee xay yaanu salaat ni ñu koy waxee ci yeneen yeneen yeneen julli ci des noppi nañ ci kenn ku nekk dana waaj yàlla yàlla fay ñëpp dem wax dëgg yàlla nag su nit doxee diggante yenn yi bu bu demee war naa mën a am lu yóbbaat يلا يلا دفن ديك اطلع وايه حي على الفلاة يتم ما ترى واتم رواه النبي بوخم دنجو جوخاي موتوخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم انا وان بني تام لي خطبه من مس الحصى فقد لغى بابا داك جي دا ام اي دوج ينو دوار اي جيمباراي اي خير خيران يو خامني ني بركه ame ba nga xam ne dañoo lal fépp ba mu daj amutoon nit de julli dara di ko jam ba mu yàggutoo ay année quatre-vingt rek ku dox ci Madina man ah, ci wetu li war jàkk ji ay xeer mën na lay jam boobu melagul bi ne ku laal dara loo xam ne ma nga ca di jàkk ja rek faqat laawut bàyyi nga lu bari loo xam ne mën nga ko caa amee te loolu tam nag dara jëru ndax aljuma ji tam du wat te day manki ci liñ ci waroon nekk motax tax mu ne waxuma la yow ngay wax waye su kenn day wax nga ne ko noppil kam yow yaa ko ka yam man qala li idha qulta li sahibika ansit wal imaamu yaxtubu am na riwaayaat yi ne faqad laxawtu am ni ne fa la jumaatu waaye bu ci nek mat naa bàyyi xel su ko defee ñu gën koo jox yitte bu baax ndax loo xam ne ku ko def yàlla la faral ko bakka bakkaar moom bu mu ca mën di doon ñu doyewu ko dara fañ ko koy jox yàlla nañu ci yàlla musal lu mat a fonk la lu mat a jàpp la waaye du wax tey ci ñu di julli ji ak jumaam doonte julli ji waaye képp koo xam ne ab jullit la nee na laa ilaha illa allah muhammadun rasulullah bam ko wax rek fa saasa su to sen tek ñu nodd waxtu man dal waxuma la aljuma bu fekke mag la werna am na ci sax ci dëkk bi dëkk ay sa ab sart ci dëkk bi dekk dëkk fek da fay jàdd jàll ak lépp waye hayya ala salati xëy ala fala bayu kenn ku dugg sa nopp donte ay yolomal am na ci ci ko xamne da jóge voyage ñëw son lool wala mu jaar fi jàll kep yakamti waaye teewut su ko defee nañ ko santaane kem kattanam mën naa am ñu dëkk ñu dëkk ñu dëkk ci dëkk bi am yàlla bu diglee day teg pay ga ca wetu la ñuy digle nit mën na koo am fii yàlla ñu ko defal waaye mën na koo dencal ba ëllëg mu jox mu jox ko fu mu ko fu joxe baax moo tax sëriñ bu mag bi di wax ci benn téeréem ne ruwiya an xayril baraaya annaman بعد الطهارة يقول في العلن أشهد للآخر كدك بنبي دي واجد لجأ الجمعة أه تدنا تنغاي لاني تنغاي لو تنغاي لو ست جنابة ولا تنغاي الجمعة نجاب بدأتي أم جبير نجاب ممو يدم جلي نجاب ما يجلي بو فكي نجاب كمي توجنا جبير تنغاي لي كوكا بلا جلي جوار daa war a jàpp bu cangaay li mooy leen julli ji waaye njàpp mi si biir cangaay li mooy julli ji sëriñ bu mag bi ne yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ku jàpp ba noppi jóg téel wax la ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu am ña si dolli allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin wa ij'alni min ibadika as-salihin sëriñ Tuubaa nee na fa saa sax des na ko ubbil bunti àjjana yëpp ne ko xoolal fii ko neex nee na am na ñu ne déedéet bu àllaaxira lañ koy ubbi waaye lu mu ci man doon rek loolu lañ bëgg dem aljana yàlla ñu ko yàlla defal kon eh, yàlla daraam du neen yonent bi sallallahu alayhi wa aljumaa moom yi dencal ga ñu ko yàlla dencaloon war nañ ko ca sant waaye war nañ ca gaawantu ba ña ña ko doon wër te yàlla woon leen ko woon ñeeñu ci fii ak fee ndax aljuma képp moo am ndaje mu ñu daje wax naa ko léegi waaye adduna bépp jullit yoo ko bokk la ñoo ko bokk la niñ bokkee jenn xibla bokk benn téere loolu ci xasaay suñu borom yi mu defal jullit yi la bokk waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fonke noonu julli gi waajal ko noonu mu ko waajale dem déglu ji ba taataan fa la muy jël na xam ne bis bi gënal yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu julli ci moom gëna bu doone ndigal suñu borom ci ab julit ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يننت بينا بسب الجمعه بو نيك دنجكو اندي ليست مبولان ني جولي وون سي موم سي اي بس بي ييب ناكو ديو جولنا سي نانغام يوت diw julli na ci yow nangam yon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ku julli ci mom ben yon sallallahu ala sayyidina muhammadin yonent bi nee na fas daf koy jot daf naan yàlla allahumma salli ala fulaanin wa sallim alayhi te lu yàlla yonent bi ñaan yàlla baat ak lay doon yàlla ñu yàlla defal inna min afdali ayamikum yowma aljumaa فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم مفروض معروضة علي lu ma ta bàyyi xel waaye ci gàttal teel a dem ca jumaata am na njariñ lool ndax yonent bi mas na cee jàjj benn waay ndax ñaare ku yeex a ñëw te bëgg a nekk ci sàppe yi ci kanam faw mu jéggi aw nit jéggi googu yi am na ku mas di ñëw yonent bi sallallahu alayhi gis ko muy jéggi di bëgg a jege si eh, loolu sax wax dëgg yàlla gën a jege kay séddale moom du am xel gannaaw kiy séddale mi ngi yor li muy séddale te moo war ne ñëw leen ma jox leen xanaa ku ñëw kay moom sa jaan wàcc na fa nga nekk dana la gis te yàlla yàlla moo woote waaye waa ji daa ñëw rek naan may leen ma jàll ñenn ñi ko xam di sëgg muy jàll yonent bi ne ko sa waay ijlis faqad aadayta wa aanayt yaa ngi nit ñi te mënuñ la ko wax li ko waral mooy dangay yeex a ñëw soo bëggatee toog ci yenn jataay yi gaaw a ñëw ka cay topp topp ca ka cay topp topp ca ka cay topp topp ca ba fi nii am na ñu am teggin yooyu ba fu ñu mën a dem bu dul julli ji itam te julli daaw nit ki da cee julli bi da cee war di jàng ak dundam yépp am na ñoo xam ne fi ñu mën a dem fa ñuy toog lu mu sori sori lu mbooloo mi bari bari fa ñu jëkk jot la ñuy toog ba bañ leen di xàmme jël leen fi indi leen fi gën a fi gën a te su boobaa seen ñaan wàcc na def nañ leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon lu am solo lu mat a jàpp xel la te mat ko bàyyi xel bu baax tudd naa teel dem léegi ak waajtaayu dem ga ak déglu xutba bi ak ñàkk déglu xutba li muy wàññi mooy di defe ne mi ngi baax te dara baaxu ci dem nañ ca waaye am na ñoo xam ne itam mën nañoo waxal tuuti foofu laa jeexal am na ñoo xam ne ñoom dañ leen naan seytaane daa lëkkaloo da leen a galgal léewtoo nañ ba seytaane galgal leen galgal moom ñaare man tànk dëgg moo cay génn nit ba dañ naan xutba ba day yàgg man ngaa xaar rek ba nga xam ne dara si lu may taxawal rek nga daal di àgg nànk nga xam ne bari nañu bala ñoo ñëw dañuy fekk ñuy lekk xam daanaka teewul nag ñu mën a am ca la yàlla digge waaye ka njëkk a ñëw ka ca topp ka ca topp ka ca topp day am wa saabiquuna أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين du tee ñëppay am waaye nag bu soñoon bu ñuy séddale te yàlla yàlla moo koy séddale lañ ca fexe ëpp saari'u ila maghfiratin min rabbikum ak saabiqu ila maghfiratin min rabbikum yàlla ñu ko yàlla defal muy yeex a dem ndax xutba ba day yàgg lool ëpp naa def am na ñoo xam ne dañ naan ñu duggee ci jàkk ji dañuy daal tàmbalee gëmmentu bu leen ngelaw uppee rek ñu tàmbalee nelaw di wane ne sonn nañ te moo ne kuñ ne woon li ko tàmbalee midi ba 6 ci ngoon saa bu waxtu sàngam tegalee fanweeri minute ñëw ñu jox la 10 000 francs yaakaar naa ne yàlla ba muy yàlla dama ko ñëw du ko am na ñoo xam ne euh, gaayaa ngay dem rek moo leen tax dem aju grand place yi dem yëpp fu ñu dem duñ fa fekk kenn ña ñoo fekk ku si ñëw ña ngay jàpp ak wut sa jaada bu ñu la bu ñu demee mu ne ah mën naa ko naafar dem rek kooku tam taxul ñuy wax ma kooku nana ko woon du tey nag mën naa am li gaa yi am waaye ixlaas ak yéene ji nga xam ne mooy lal gépp jaamu yàlla daa mel ne amu ko ci woon am na ñoo xam ne it julli ji aljumaa li tax ñu di ko def bokkute na ci julli woon mooy feeñal seen seeni tawaadat mën a tawaadat rek ku dàq tawaadat su morom ña dàq tawaadat ñoo toogee ne nga xam ne naa ko si bi tey nga jàll ndax fee daa fees mu ne ah non fee du sama place suma place nga fee sa gaa yee tuwaaletukat yee ak nàngalkat yee fa la sama nekk waaye am na ñoo xam ne itam jàmbaar lañ lool euh, foofu itam am na ñoo xam ne nit ñi par ajuma rek lañ leen di gis ñu tuwaaletu ba boole ca tuwaalet ba fas fab as ngaj gisu ndaw euh, ndax as ngaj gisu ndaw ni muy rafete saxaale ko danañ ko ñaawale ab tuwaaletukat bi de ku xay naan daa tuwaaletu ba nga nga aw géej am ñu xam ci ajjuma rek nga leen di gis par aljuma rek fekk dañuy toiletu ajjuma ji nañu sol lu bes sol rafet lu baax la du tay ñu am li gaa am waye nak digle nañ ko sol lu rafet lool waye ko xam dañ koy topano ak di ko roy da war def lu yam rek lu nit ñi man ndax ma xëndo sunguf ak ko yomal ay lor waye am na ñoo xam nak nag ñoo itam ñamata dina waxam bu ñu julli ci aljuma lam leen fekk woon ñuy liggéey rek lañuy ñuy sol léeg-léeg kenn nangu ñu jege na donte la liggéeyee lu laab la lu si mën a jubluwaale waaye nag kenn du leen nangoo jege ndax day taqalaate wala muy xeeñalaate ginnaaw dañ ko doon bañ ci fiq sax ci gémmiñ loo xam ne sax boo demee boo nooyee nit ñi di bëgg a tus ko rek waxuma laa nga sol ko far moo tax ab jullit nekk Touba ak Touba ni suñ Touba fonk jumaa ji war na fa muy liggéeyee mu buy xëy di julli ji bu sa bisub àjjuma buy xëy di liggéey kenn terewuñ ko ñàkk tere moo war la ñuy woote marché bi far àjjuma sax ndax nit ñi bëgg su boobaa suy liggéey mu yóbbaale mbubb moo xam ne bu waxtu julli jegee mu dugg ndànk ci waajukaay bi waaj sol ko bu julli bu julli ñëw ñëw ñëw si ma ko tegaat waaye toog ci jumaa ji te kenn du nangoo dend ak moom kenn du nangu mu féete la kanam ndax ràpp gu yëree ràpp itam nag wax dëgg yàlla war naa war naa mën a mat naa bàyyi xel ci ab jullit te bu ñu ko woowee si ngénte la wala ab invitation du ko soxla te wuy yàlla moo gën a yeeyoo fuuf ci toilette nag sëriñ bi mag bi nee nañ juróomi waxtu yi ñu daan jullit yépp ci jumaa ji waxtu wu nekk daraan sol lu bokk rek lam solo moo dàqoon a sañse moo dàqoon a sant yàlla ndax nee na gan kenn du ko am di ko ganalee ndawalu démb yàpp wu xëbb warta boor lañ koy terale moo tax waxtu wu mu masaan di julli ji day sol mbubb mu bokkut ak bam solom yenn saa yi mu doon lu bees taq yenn saa yi mu doon am póot waaye ñu mu jëlee suba di ko julli ñetti tisbaar waxuma laa di ko julli ji takkusaan lan ko la wane moy day da don sant yalla di wane aw yoon waye yi ñu wax ci ni ku julli ci aljuma yépp dana ko am am na ñoo xam bu buy dugg seenum du suñ ko manki lu baax waye nak du suñ bayyi dara ndax lan sa bu julli ci aljuma rek la ko taxon sat na wécc mu tàmbale wat yeen aljuma ci ni ku tax ku sat di taxat diggante bi lu ne xaj na fi diggante ajjuma morom lu ne xaj na ci te bàyyi waxtu yépp ñuy dem te duñu la yóbbaale duñu yóbbaale nit ki dara su ajjuma ñëwee bëgg ko dàkk ajjuma day bañ day solidarité day jàppale bokkam yooyee te moo yey ndax ma tënk ma jeexal li tax ñu tënk ko ci ñaari rakk kepp digle ca dige ca xuppe ca du nen toole su kese du wàccaayu kese du dem déglu ci kese waaye lañ fay wax nga taataan ko parce que yéen a jariñoo bu dee lu ñuy tere da nga nekkoon ci nga dañ koy bàyyi fa saa su dee lu ñu digli si tàmbalee googu nga dañ koy tàmbali bay génn jàkk mooy ida qudiyati salaatu fantashiru fi l ardi wabtahu min fadlillah du dellu ci sa liggéey kese kese ni ko ñenn ñi waxee bu ñu nee asalaamaaleykum ñu ne sa nit هذا الباقيات الصالحات بقرتي سبحان الله الحمد لله الله اكبر لا اله الا الله واي بو الجيما جوتي نيب ما سي نيو بو تك سان جوتي جيما جي نوي با خلي جنرال سين شيخ سين مختار قال لك يلا ياغال نينا داكاي باري نا لور لك رك لي ني باري باري امنا داكاي يوسان بو ديمو جو فك يين تصابي تو تختو ني وخ داكاي juma yi yàlla mën na ko musal ci loolu waaye juma ji it la tax ñu woote fa ubloo jàkka yi ci bis boobu daa am lu fa war a taaxaane yóbbu ko jariñoo ji ko yàlla ñu ko yàlla def fan yi ci ginnaaw nag bari na dëkk yu ubbi juma lool yàlla nañ yàlla fay ci yor tabax juma yor tabax jàkk waaye dëgg-dëgg am na ci dëkk yoo xam ne daara lañ doon soxla ci juma ndax dëkk yoo xam ne ka fay jiite al juma dañ koy importer importé imam importé imam nag wax dëgg yàlla booba dëkk jumaa dafa fàtt waru leen kenn mënu ko ci dëkk wàcc na la te amuñ fi wuy ji fu jege nañ dem wuti daara jàngale waa dëkk ba bañ ma ba am ñu mën a julli jumaa am ñu sa mën a topp ak ñu say toppal ñu leen di gàgganti su boobaa ba dëkk bëgg na xumb ñu jàkka fépp jàkka na suñ tënkoon ak julli rek ci jàkka ji jàkka yi su boobaa jafe-jafe dana am waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ko yàlla jant bi la ko natt fu waay mën naa fekk waxtu mën naa fekk nit fu mu ne suuf sëpp dàkkal sart bi rek na am na dëkk yoo xam ne dëgg-dëgg seen farata àggugul ci jumaa ginnaaw dañuy importer ak imam dañ koy jëli dëkk dëkk léeg-léeg mu tukki loo xam ne sax daanaka julli julli yi tusbaar takkusaan ñeenti rakk da ko da wàcc dafay war a mën a wàññi julli ñi di ko jëli muy jéega di julli si nag wax dëgg yàlla ñooña daara lañ doon soxla yàlla yàlla defal dëgg ak sopp te man la jàpp tiliku lu bokk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na bis bi ko fi yàlla indee kenn ku dib jullit mënu koo bañ yoon wu ñuy war a jaar ba mën a gañe Sëñ Tuubaa gisaguma ko seetloo